أنا أنا أنا કેમેરામેન રૂમ દે ગય હા આ બર પેરાકો બરો હા આની બિલ્ડિંગમાં વાવાંશ કુદેગોગા હા જો પડે તમારું રવ અરે ભાઈ આરીબાંગો કેલી દાનો ખીબલો નુમ દેવેલી દિયુ ફિસ અસલામ અલયકુમ બાબુ સે નાગોગ દેસા અપકોવા આરીબે આલે સ્ટેડિયો Lamine Gueye de Kaolack. dëgg taalibe Serigne Fallou waay. Eh, taalibe Serigne Fallou baa ngoog. ndeysaan bu ngi noonu di wàcce bagages yi kon Kaolack du yomb ak ak gàllankoor ndeysaan mais géwél yi daal bi daa mel ni xam naa ne heure añ eh, bu laalati sabar dañ koy tere bu laalati ba baamu seen

Deuxième berge encore. Hein? Ak ñaata sungu yi ñaata sungu ne la. Dëgg la jëlal ma sungu ne kaay. Jëlal ma sungu ne. Benn sungu ne am. Pek bi laa xool. Ñaar. Bii jëmbee la bii pek. Ñett. Ñett ci biir. ah ñeent ci bële. Waaw waaw. loolu dana la waar jël ma xiin yi génn xiin jël ma xiin yi génn xiin a ngoog ah ñaari xiin loolu dana waar ak ñaata mbëg gis naa fi cinq de cinq six six ci biir ci biir suñu yaa ngi noonu léegi cool yee ngeen ak talmat yaa waaw cool yee wàcce ko talmat bi wàcc na mu ngi ne gorong gorong ci gorong yéegal la Idrissa li mooy gorog yéegal lii boo xamul li gorog yéegal mu ngi nii gorog yéegal a ngi nii ah? yow jaafaat nga dëkk diggante jaafaat ak Passy fa nga dëkk xam nga gorog yéegal. mooy gorog yéegal léegi moom eh, eh, eh, jëlal ma. na fi tiir ko Babou Sène na fi tiir dèjà mais que moom duggagul Dakar Dakar gars yi daa war a dugg maa ngi ñëw. loolu dañ cee war a wax. maa ngi ñëw. loolu dañ cee war wax de. doo sa Ibi day xaar cool yi wàcc. cool yaa ngi wàcc ñu wàcc rek ñu ñëw. ñi ko yor lamb cool yaa ngi. benn cool a ngi noonu. yaa ne faatoo xel de mais cool yi daal dañ ko dañ ko birni waat. foor yu bees la àndal foor yu Papa Sène a ngi nii Seydou Mbaye Ngloum. Papa Sène Seydou Mbaye Ngloum. waaw. kii nag xanaa war naa ndax mbayam num rek li muy génne waxtu balaa séer mbayam num sama doom jàng nii sama taw bi bébé Fatou bébé Fatou moo nekk nii foor nañ ko bees la ah, ñaata cool ñett petit lion baba ngay présenté nee nañ bii mooy petit lion ah kii di dama photo waaleel sama aw buri moo nekk nii jëlal ma cool yi photo ñaata cool Issa Ndiaye moo nekk nii ah loolu doy na waar yaakaar naa cool yi jeex na kon baabu bala ñoo def dara duñ yegg ca kër ga de si naaju la ñuy taxaw. si naaju la ñuy taxaw waaw. dëgg la. Euh, asalaamaaleykum. salaam. wa rahmatulahi taala wa barakaatu. wa rahmatulahi mais seen doxee nga naaj. waaw doxee naa naaj nag mais nag boo gisee nag am lu ko waral tey ndax sama yaay moo xewle. Mhm. moo tax ma doxee naaj. ndeysaan. buñ ne Ndeye Fatou Adama Jali ne Babou Sène euh, bu Gandiaye borom àll bi euh, tey Ndeye Fatou xewle lan lañ mën a xaar ci duo bi nga xam mooy entre Ndeye Fatou ak ak euh, Babou Sène. Babou Adama Jali Ndeye Fatou di sama yaay. di sama bàjjan mhm. na sama papa da ko jël mayen ko ndike ndeysaan wa <coughs> loolu du lu yag loolu du mo mhm. do non tout tank di ñew lamb ndangal mhm. mer bi def ci man lu bari ndeysaan wa nan ki sama dom la ko yalla def ma magge tay yor sama bëtëri wa dio bi nak yag nay am te yag nay yag nay neexit mais tay la nak tay la tay moy bëss bi nga xamne ne la bi doon xaar tay moy doon bëss bi nga xamne mom moy bëss bi raw barki Serigne Bamba Mbacke ku deglu di nga deg ku tok ci àll ba di deg di nga deg barki seigne Touba mbak taaliba seigne Fallou mo wax loolu man man taaliba seigne Fallou mbak babu seigne seigne Fallou ma wax loolu ya wax loolu man wax loolu wa diyo bi da nañ ko deg ci bir ndokh mi muy wacc ba yegg fi nga xamne moy Kaolack yaakaar naa jubul Kaolack wa tay moy suñu premier duo Kaolack Kamu nañ fi duo nak mais lamb aju mais yagna mhm. wa bo tout tànk la mhm. mais tay nak moy premier duo bi bi nga xamne bo bero yon bi wa bo beru ma yon bi mhm. mais nak bi nga xamne groupe sop Fallou beru na tay moy premier duo bi Kaolack ci ni waaw Kaolack Kaolack di sama dëkk man mii sax na man fi laa yaroo. fii nga yaroo Kaolack. fii laa yaroo waaw. kon ça daal euh, bu ñu waxee naar bi daa dellu gànnaar. naar bi daa dellu gànnaar waaw. ndeysaan Gandiaye laa juddoo. Mhm. lii fa mais Kaolack laa yaroo fii sama sama fii Saara. Saara waaw. naar bi dellu si na euh, gànnaar mais naka nga préparé li nga xam ne mooy bésu tey bi. non bési bi nii préparé ko nii rek comme man moom moom mooy loolu man taal bi sëñ Fallou laa. Mhm. yaa ma gën a xam ni may préparé yeneen bési rek laa ko préparé. Mhm. waaw ñëw fas yéene jàkkaarloo sama yaay rek. Mhm. ñu def ba mu baax. def ba mu baax waaw def ba mu baax rek la war naa la barki dem nga dama yaa ngi ci port mi waaw boobu maa ngi ci port mi nag ndax bugguma woon dari màgget yi ma andi leen fii nii gis nga yëpp ay dari bees laa laa defar tey andi dari bees bugguma màgget moo tax comme sama bés te damay doog boobu a jóge ñoojoor mhm. te bi may jóge ñoojoor sax boobu sonn naa mhm. ah, maa ngi fa ne sama yaay séeri Pape Sène moom it mhm. mu mat moom ñu toj ñoojoor ndeysaan waaw dégg naa mokk na rumbux kenn na foofu mais tey nag moo war a jàkkaarloo sama yaay ma ne der yu màgget noonu dama koy dindi yëpp andi yu bees yaay sa sama yaay sama bàjjen soo fooree port bu bees da ngay andi lu bees tàq tey yu bees tàq wax ma laa lu bees mais lu bees tàq tàq tàq lu kenn mos a génn tey tey lay tey lay génn lan ngay wax ñi nga xam ne ñooy euh, Euh, ñi nga xamné ñoy ñoo ñoo wara sétan ci si di amateur ak amatrice yi. di len wax ni ku yex di nga ñak place ku yex di nga ñak place te bésu bi ku ko tardé di nga tardé lo xamné ne sa ñu ko nettalee sa xol bi jeex sa ñu ko nettalee sa xol bi jeex ndax bésu tey bi tay day melni babu Ngom mu tok jakarlo Khady Diouf. barki Serigne Bamba mbake mu melni ni mit la la dé tay dina melni babu Ngom mu tok jakarlo Khady Diouf. walaay nga maa bëgg wax ne yow di ñu andil démb andil ñu tey. tey moo tax ma xale ko naa la andi démb andi la tey barki Serigne Touba Mbacke moo tax tey dina mel ni Babou Ngom mu toog jàkkaarloog Khady Diouf waaw. Babou Ngom mu jàkkaarloog Khady Diouf namm nañ ko ñun ni nga xam ne ñun waay Ndakaaru mais pourquoi pas pourquoi pas Babou dugg dakaar daaw ren déggaguñ ko. non ndax man nag li nga gis nii àll bi dama ci am ay kóolóore yoo xam ne tey jii mu buggee bëggee bàyyi seen làmb di dem Dakar. dina doon loo xam ne ndax ñoom laa njëkk xam. Mm-hmm. ndax ba may nekk sama turandoo baabu nga. Mm-hmm. ba léegi maa ngi ci kër gi mm-hmm. damaa féetewoo leen ci àll bi. nangul kenn ku dem ci àll bi man rek ma la nangu ma dem ci àll bi. man la àll bi xam. man maa leen defal liñ bëgg. moo tax tey nii bi ma demee tey ba tey jii nii ba xam ne tey su ma leen buggee bàyyi it dem Dakar. dina doon loo xam ne dina leen metti te man nit du fàtte démb. waaye te man samay nit démb dama leen a fonk dama leen a jàpp. moom moo tax. xale bi mënaguma leen bàyyi. waaw moo tax mais Dakar moom maa ngi ñëw bu soobee yàlla ñoom dinañ. mais sa diyo baag Mbaye Mbaye ak lum gaal gi boobu boobu doyoon na waar. beneen mu ngi ñëw bu gën a bu gën a dee boobu de beneen mu ngi ñëw bu gën a dee boobu su ma diyoon Mbaye ak lum teree gaal gi. Mhm. beneen mu ngi ñëw bu gën a dee boobu bu gën a te bi ñuy ñëw noonu teree gaal gi boobu dafa fekk mu am ñetti làmb. Mhm. bi muy ñëw écritif bi ñëwul dafa fekk moom ñetti làmb teree moom ñii nekk Sadio nga. Mhm. ñi newoon fii beneen beneen dëkk bi lii bi fee côté kii loog lii nii njombaatu fi mhm. mais bii nii ba bii di ñëw nii mhm. bu écriture bi ñëwee ñoo xam ne écriture bi ñëw na lan ngay tàggu di sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax ne nag tey jii nii suñu yaay moo xewle ñu suñu yaay day faatu mhm. di ci woo ñëpp nag fu waay nekk tey bëgg nañ la nga ñëw tey seetaan si bés bi tey waaw euh, di wax ne tey ñoo jàppale suñu yaay. Mm-hmm. ñoo dooleel ko. waaw mm-hmm. euh, ñi ñaan ñëpp nag mbooloo yëpp. Mm-hmm. di sant ñëpp nag di sant di gërëm sama turandoo di gërëm sama papa Pape Sène. ndax lépp moom la sabar yi ngay gis nii moo yëkkati xaalisam. jox ma séeri Mbayang Loum. Pape Sène bu Mbayang Loum Pape Sène mu Mbayang Loum. moom laa la moom laa tuddee Thiol moom. bii. laa tuddee cool mii mu yëkkati xaalisam jox ma ma jënd jënd sabar di ko gërëm di ko sant di gërëm sama waa fan si club waa Sokone bàyyi ma kenn di gërëm waa Gandiaye it nga xam ne woon falaa dëkk falaa juddoo falaa yaroo amoo fenn furul Gandiaye fa ngay tiitaroo fa laay tiitaroo di la gërëm yow mi nga xam ne sama doomu ndey nga sama nga may loolu eh. sama doomu bàjjen la waaw ah. bu doon jigéen maa maa koy féetewoo waaw mais nag euh, ndeysaan jëlama jëlama jëlama kii mooy Modou Ka. kii mooy Modou Ka. kii boo gee doomu Mor Ngom la mais yàlla moo ko. Eh, eh, mbaa doon na bàyyam. bii laay leeral la kii mooy cunkat booy bi gisee jëm si ay moom la mooy cunkat bi gën a aay ci. cee te te te te. moo tax ma tey làmb nooy. ah tey làmb nooy mu ngi nii daam fu muy dem nii léegi ñëw mooy ñu ma cung si làmb ah. kon nag nañ ko yóbbu 100 pour cent ngomeen. waaw. 100 <laughs> pour ngomeen. loolu leen di tàggatoo jox leen di daje ci kanam tuuti rek. yaakaar naa géew bi moom yaatu na monté nañ pëjoom yi takk nañ rajo yi ah bu ñëw na naa ki sabaram yaa ndey faatu ñëw na fi jaagar jaagari léegi xool géew bi demaat hmm. ah dañu teg sunu loxo foofu ba ci kanam ci kàttanu yàlla asalaamaaleykum